dox di fo wey naa buurante wey naa mooy yàlla wey naa ngir ma dem naa bànneexu wey naa wéeteku wey naa xaajaani xew-xew yi ci ñetti fan yi njeexital lu am solo ci yoonu murit ak ci àddina bi midaadi wa aqlaami liman sax saxal yama kama saxsa seytaana wal jahla wal xama mahalla wa an alxa asan maasiya bil baaxil la si xidmati ramaa min annaari waa saytaani qad mustumun dammaa bi rabbi ilaa xuddaami man hindahul asmaa. wala ma war ñoom ñaar ñu àndi fi ñëw. lii may wax it sëñ Madou nee na lu ci mu ci xam lu ne sëñ Abdoulaye Diop ko nettali ginnaaw bu mbir yooyu yëpp xewee. ku ñuy wax Baye sëñ Ndiaye ant ñu gën koo xam ci sëñ njaay Kaang wax na ma ne ma keroog bi ma Mouhamadul Moustapha di ñëw gis naa ko maa ngi taxaw mu ngi sol garam bu baxa mag damay nettali sëñ Sariwu doom daf may nettali ne ma fekk na boobu am na baa goo xam ne waajaloon na ko ngir dugal ko ci bernde yi da ko jox ngir mu yóbbaale ko ñu boole ko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal. ko déggaale sëñ Modou Moussa ba mi dem jaar nay de nekk mooy tubaab yi mas nañu woolu Cheikh Moustapha ndax ñoom jàppoon nañu ni sëriñ bi te loolu même demee ci rapport bi ñu ngi koy wax. waxtu yoor yoor jamonoy nawet ñëpp xëy tool kër ya wéet allah ni kërim lépp selaw ni sendaw kenn déggul dara lu dul xale yu ndaw sa sabum picc yuy dal ak naaw ngelaw liy riir ba fa mel ni kuy wax mbaate kuy jottali ay wax jooju ci gox yu fasantikoo mbir yu lëmu te kéemaane di fa bàyyi ko lépp di kumpa ci képp ku mënul dégg jeneeni wax Touba Kaël ak juróom-ñaar سقديم lii mu ngi xewee diggante fukki waxtu ba fukki waxtu ak benn ci suba ci dëkkam boobu nag fa la nekk ba yàlla dogal ci bisum dimanche bi jiitu bis bii nuy waxtaan mu war a tolloo ak dimanche fukk ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit 1346 sëriñ Mouhamadul Moustapha bi nga xamee ne xëy nañ ba toog ba def xéewal yéeg ndekki yépp ba yeggal mu am xalaatu bàyyi ko foofee ci tënk bàyyi ko foofee nag ngir am na yëg-yëg boo xam ne xëy na moo nekk ci moom kenn mu ni teg am yàgg mu jéggat piliyaan bi mu toogoon jaar ci buntu sarale bi di toog kóorub ñàmbir bu mag bu ne ci gannaaw kër gi àggee ak nga fa gu mag mu taxaw ca keppaaru yor mu jógee sëñ Mor moo jóg topp ci moom sëñ Mor maam yi sëñ Mbàkke Soxna Lo moo jóg topp ci moom mais bi mu dikkee sëñ Modou Sa wax ko ni ko Mor man de dama jaaxle wax na ni sax daa jëkk boole loxoom yi noonu muy def ci kanam ba boot ko ci gannaawam delloo siwaat ko ni ko moor man de dama amuk jaaxle mu ne ko war a jaaxal sëñ ah, ah, dafa am lu ma de te ki ma ko wax bu waxee la mu wax garab mu ngi ko dindi loolaay la am ah, mu ne ko loola nag moo di dañu maa xamal foofu ma ne woon ci néew ne ma amee ñeent fukki at dootul mën a amee kilifa fii ci kaw. moo amee ñeent fukki at deetuma am kilifa te sëriñ baa ngi fi. loolu yi de jaaxal na ma te fii ma taxaw di wax ak yow maa sama ñeent fukki ñu tegal ay bis sëñ moor ni ko ah loolu de doy na jaaxle tuuti sëñ bi ni ko baax na dellu mu del si toogaat suñu yeewi mag ñi ñaanal leen na ngeen sax ci jaamu yàlla ak liggéey te lépp lu ñu leen di tere ngeen moytu ko ba kenn du leen ci seen wax leen ni leen ni dama bëgg a jëm wetti Tuubaa jaaxle jiixi jaaxa tàbbi mbër ma laxas fere ya fëx wër ba tàmbali mu bàyyi ko foofee dëgmal Tuubaa bu mu fay jóge itam ànd na ak leen nett ñi nga xam na ñoom la nekkaloon ku mel ne sëriñ Mor Jàndam Jóob ca mbooloo ma la bokkoon ak uh, ku ñuy wax sëriñ Codé ñaan moom itam ca mbooloo ma la bokkoon ñi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Moustapha woowoon na leen ci bis boobee ak ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Silla ñett ñooñu la àndal ak chauffeur bi nga xam ne moo doon dawal wata ba ñu di ko wax sëriñ Aliou Bey moo ànd ak ñoom jógee foofee ca Touba Kayal fii ci Touba. Touba Soura Touba Tindoodi diggante midi jàpp benn waxtu. bi ñëwee Touba itam jamono yooyu Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi dëkkee Soura man raa muy foofu yi njabootuk sëñ Maxtaar Bintaloo gi dëkkee foofu yi la kër gi nekk jamono yooyu ci Touba ñëwee itam dafa dugg ci biir kër gi rekk génnaat yàggul dara mu jëlaat oto bi wuti Tindoodi bi mu demee Tindo di itam ku ñuy wax bay sëñ Njaay Anta ñu gën koo xam ci sëñ Njaay Kaang wax na ma ne ma keroog bi Cheikh Mouhamadou Moustapha di ñëw gis naa ko maa ngi taxaw mu ngi sol garaam bu baxa sor ay dàll yu puur moom it dafa dugg ci biir kër gi rek daal di génnaat jël oto bi wuti jaar nay de jaar Kellal daaroom ya sa sura ak taar ba mënu koo defal mu woy usnul maab mbir ma du foofu mu romb kélleel jaari ñaaxeel tindóor la xëy jaar nay de jaar fii jàll téeleel diggante benn waxtu ak ñaari waxtu ci bëccëg kéeleel dëkkub sëriñ Madu ma xulóoje Jóob moom itam dafa jaar rek romb jàll bi mu jaalee nag loolu dem ñaaxan te ni ma ko dégg ci ci bi may gone walla laa jotoon a dégg moom Ahmadu ma xurëje mooy maami sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mooy waajur soxna Fatma ci bu mi jur sëriñ Cheikh Ahmadou ma xurajee ñu ni ko dafa dem tool laaj ko ñu ni ko dafa dem tool ñu ni ko ndax ñu wooyi ko mu ni du ko mat waaye fa la bind ab bataaxel yónnee ko xëy na ma wàññi ko danaa fi jaar dama jëm nii ci kaw ñuy génn tuuti fa la jullee tisbaar door a jël otoom di wuti dëkkam boobu di ñaaxeen dajale wey naa jag-jaglu wey naa dem naa jaar na daarul Muxti fa jaaree itam nee na oto bi jàll tuuti mu seen sëñ Ablaye Diop si fekk ma fi fekk ma jóge lew na am li ma bëggoon doon ko fi lijjanti si bi ma ñëwee lijjanti bay génn nag tombanteeg waatab sëñ bi di di agsi sañ na bi xool geesu gis ma daal di wax safar ma taxaw mu daal di may def ni loxoom mu daal di dem si mu laaj ko ana waa lew na laaj ko itam lu muy dox mu ne ko daam lu fi doon lijjanti si rek mu wax ko ni ko su fekkee oto bi ndox mi dana ko mate de nga bijjanti ma ñu jëm ñaaxeen sëñ Abdoulaye na ko dana ko dana ko man mu nekkoon bijjante ma loolu moo war ñoom ñaar ñu àndi fi ñëw lii may wax it ma Madou nee na lu ci lu mu ci xam lu ne sëñ Abdoulaye Diop ko nettali ginnaaw bu mbir yooyu yëpp xewee ñu départ foofu wuti ñaaxeen daaru ñaaxeen ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu daaru daaru ñaaxee ni itam ay tool la yoo xamante ne ni maam Cheikh Anta moo ko ko joxoon ci 1922 loolu yabal fa sëñ Mat la ñaaxeen wax na ni bi muy dem ñaaxeen la waxoon ak moom ca biir néeg ba waxaat na ak moom ci biir oto bi waxaat ak moom ci biir oto ko wax yooyu wax bi ñëwee itam ba nuyoog njaboot gi ñëpp xam nañ ci taarix ne e, way juram maam Cheikh Anta Mbacke moom mooy ki nga xam ne moo ko joxoon dëkk boobee foofee ba nga xamee dem na fa fekk na ñoom it nag toll nañ ci di war a bayaat dugub mu wax ne ay feral la nekk fii comme ni ma la ko naa la fi mu ne ko netti mooy taw boobu taw mi ngi fii ñu fi nekk mu ne ku ñuy wax sëñ daam si la ak ku ñuy wax sëñ daam booja moo jëkkee seen benn wata bu ndaw boo xam te dafa dugg ci kër gi waaye nag booba ñi mu ko wax sëñ mat si ndax eh, sëñ mat nangut kuy liggéey di seen dara di ko wax ginnaaw bi ñu béy mu yàggaat ki di jarbaatam seen ay wata bu ndaw bu ci toppaat mu ne ko sama nijaay di wata bu ndaw bu jëm ca kër ga wata bu ne mu ne ko bu ñuul la de mu ne ko ah, kon de xanaa loolu dara la ko ne xanaa kon lool ba mu ko ne xanaa kon loolu dara la dama seet ko suñ daam boo ñu door ko ne ah, boobu ko benn jiitu woon na ko mais fekk na boobu bi ko jiitu mooy watam sëñ Abdoulaye Diop lew na sëñ Abdoulaye Diop Léona itam yi may wax sama bàyyi nee na sëñ Abdoulaye Diop Léona moo ko ko euh, waaye loolu bu fekkee ñi nga xam ne ñoo jàpp ne dimanche la jóge woon Touba te jàpp itam ne ci dimanche jooju la fanaan ñi ñaaxeen bu fekkee ci riwaaya boobu muy solo boobu ci lañ sukkandiku daañu gis nekkoon am na ñaari guddi ca ñaaxeen. bi ñëwee it ñu woote ñu woy sëñ Mody ci tool yi bi ñëwee ci gaaw bi nuyoo. Seydina Mouhamadou Moussa moo ko xamal ne ko yéen kat wuti ngeen tundoo di ma bàyyi ko léegi am nawet ndax ñoom dañuy war a ba baxaw sëñ bi ne fekk fekk na booba ne noo ngi tool yi noonu ci war a bayaat waaye sëñ Mouhamadou Moussa nuyu moom ne ko kat damaa jëm njaareem li tax ma jaar fi nag damaa xam ne bu ma fi jaarut ci yoon yi damaa xamul kañ ma fi mën a gaawatee ñëw moo tax ma jaar waaye njaareem laa jëm léegi sëñ Mati la wax ko ne ko moo ne kun dimbali woon de e, fanaan ba suba dee doon sin dimbal moo ne ko ndax lan mu ne ko damaa woote woon tool bi tama xam buñ defi déggee ñëppay ñëw te bi ñëwee liggéey bi dana doon dimbal nag teel a yàgg daaru ñaaxeen altine fukki fan ak juróom-ñett ci tam xarit diggante 10 heures ba 11 heures ci suba bi jant bi laataan naaj dara tool bi àgg na mu wax leen ne leen toog leen ko ma dem yëgal ko ki ni liggéeyal ñu wax ko ne ko tool bi la àgg na mu wax ko ne ko na nga dem wax leen nañu daje fi benn barab bu yaatu toog ma ñëw fekk leen fa ne ma ñëw ne leen kat mi ngi ñëw kon ñu woo ñëpp ñu daje fi benn bërëb ne noonu lañ def ñëpp daje ne la ma wax leen ne leen boo xamee ne mu ngi ñëw nag bu kenn demee joxe loxo bu kenn jógit na kenn ñëpp boo fi suuf ba mu ñëw ba toog ba wax li muy wax ba dem kenn ku ne door siggi fa nga toog neen noonu tam lañu def mu ñëw nuyoo sant nu ñaaxaan ju taalibe ni ngeen góor-góorlu ci liggéey ak jaamu yàlla ak sax ci ndigal wax ko ba mu yett yoon daal taal ay ñu taal mu ñaanal leen زحزح عني يتنفس صرت خديما مصطفى مثل انس جئت كما زحزح عني يتنفس صرت خديما مصطفى مثل انس ملكتني وقلت لي احسانا ولست في مدركتني حسانا ورثتني ñu daal di wut si kër gi ci altine ji neen tàkkusaan di jot euh, sëñ Madou nee na ma dem yónnee sondeel booba xam nga suñ jamono ji xam ne sëñ Tuubaa liggéeyam bi maase la fépp mel ni biti foo jaar lamp du jaxwetul kenn booba sondeel la xew yu rëy yu ñëw naan dañ ko si pot ma xam ne fanaane tàkk mu wax ne ma yónnee ci benn pot mu mag mu ñëw ne jant bi so mu xamal ne ma mbooloo ba mu ñëw mu ne ma na nga feree ne leen kees gi bu ci kenn fanaan na ñëpp fanaan ci penc ma ñi may jàng alxuraan nañu jàng alxuraan ñi may jàng xasaay nañu jàng xasaayit ñi mën a tudd yàlla nañu tudd yàlla waaye kees gi moom bu ci kenn fanaan mu kees gi wër néeg bi mu nekk nee na ma toppatoo loolu bi jant bi soo. Daaru Ñaxeen diggante juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti waxtu ci ngoon. bi ma ko reer bi noppi na ma dafa ne wool Ablaye Diop te jox ko ko muy sëñ mi ma àndale woon Daaru reer bi noppi na mu ne na ñëw bi ñu reer ma noppi sëñ bi deel ma waxaat ne ma wax fere bu kenn fanaan fii nee ma wax fere yëpp daal di bunt bi. daa dikk nee na may bëgg a taal làmp bi mu ne ma làmp bi taal mune ma bàyyi làmp bi ngeen di bëgg a ñëw di bunti mu ne bunti mënta ub sëñ Madi nee na sama dina xaw naa rëcc ndax kilifa gu nekk ci néeg ne làmp bi mënta taal bunti mënta ub nee na ma daal di génn daal di boofi bunti bi nee na ma dégg maaji der bi ñu wékkoon ne déer fi suuf daal ne allahu akbar nee ma léegi muy juli di sëlmal di julli sëlmal ba julli la ko soob toog di jàng alxuraan di jàng xam ba gënaa def sab sëñ ba ne ma roseet ndànk di fëgg jigéen ñi neen jóg di defan ndéegoli neen jóg defan ndéegoli bi daataan bi jant bi daataan fenk ndéegoy noppi mu ñëw ndéegoy ndéegoy noppi ne mooy wal Ablaye Diop te jox ko ko ma woo sëñ Ablaye wax ne bii ndéegoo ba noppi ba yaataay nee na ma dikk joxe sëñ Ablaye ci wetu ndi jooram fi ginnaaw ndànk ne mu ne ma gees ma ne ko da ngaa wax sëñ bi ne ko ginnaaw ni ñi ñu bari xamuñu mi ngi fii te jamono bi dafa métti ci wane métti na ci moom daa bëggoon nga wax ko mu noppalu fi mais sëñ ma wut ne ko gees na ko lu mu ne ko ah, waxu dara de xanaa da ci coono yi rek bëggoon nga noppalu fi nee na sëñ ana wata ba fekk dama ba ak suñu maal sama gi bu jant bi soo bu demee ñu làq ko foofa muy na wata bi ñëw dañu daal di indi wata bi dañu daal jël bagage bi di dugal nee bi ñu bëri nu ñu génn mu daal ma fëttal su ne maa gaat fi suuf ndànk mu bàyyi ba ñëpp génn nee na mu yëkkati juróom fukki dërëm ci jamono booba xam naa juróom fukki juróom fukki dërëm booba defe naa ak fi nu toolu xaalis bi dina rawante na loolu su tante ci doole ne ko su ma demee nag ma ko ñu Habib Dia waaye na nga néeg ba ma jox ko ba na ba ma dem nga door ko jox nee na sëñ bi dem ma daal woo sëñ Habib ne ko sëñ bi moo la jox lii sëñ bi daal jóg ñu daal di aw yoonu ngembe bi wuti gaawaan Daaru Ñaaxeen talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci tamxarit diggante juróom-ñeenti waxtu ci suba jàpp fukki waxtu doomu aadama la suñu borom tànn def ko xalifaam ci suuf terewul mu def ko insaan muy wàcc ba suuf mbër ma jëfandikoo insaaniya ak nite ba mën a wax ak jaam ña terewul kàddu ga dellusi naa ko wéyal njaareem gaawaan diggante fukki waxtu jàpp fukki waxtu ak benn ci suba. bâtiment bi yi ñuy jàkkaar lool moom ci la sëñ Modou fekkoon maam Cheikh Anta bâtiment bi itam ab étage la woon ci jamono yooyu ndax commandant bi mu dikkee ci kaw la ne woon moo ko maam Cheikh Anta waaye ginnaaw bi la étage bi daanu. moo tax mu jógewaat foofee mu xëyee fa kon bisu talaata yor yoru talaata yor yor bu xaw naaj. ci la xëyee ñaaxeen wuti njaareem ba mu wutee njaareem itam fii la jaar fekk fi boroom gaawaan maam Cheikh Anta Cheikh Anta waxoon sama taw bu baax ba dikk na xam naa ngan gi ma doon dikk tey jii la ko yàlla dogal fas yéene def ay bernde jàpp na day yendu waaye xam naa ci biir waxtaan wa mel ni moom itam mu joxe ngànt ne daal du mën a yendu daal bëgg ñu jéggal ko sonn na ci sax moom maam Cheikh Anta bëggoon mu yand lool ngir ni mu fonke gan waaye sëriñ bi itam ñaan mu jéggal ko ngir mën a yand mag damay nettali sëñ Sariwu doom daf may nettali ne ma fekk na boobu am na baa goo xam ne waajaloon na ko ngir dugal ko ci berle yi da ko jox ngir mu yóbbaale ko ñu boole ko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ak saakub cere ni ko ginnaaw boo yendu woon danaa la ganale añ baa ngi noonu sëñ moo door fee bàyyi ko wuti njaare yàlla dogal na baagoogu sax sëriñ mat Lamin Touré dëkkoon ca turan Touré ga ca Ndulo moom la may baagoo baagoogee yàlla dogal mu wéy yenduwut keroog wax nañu diggante tisbaar ak takkusaan la àgg njaare mooy booba tisbaar weesu na te takkusaan ak séewut boobu lay door a agsi ci bu mubaaraka ci këram googu ci gànnaaru kër sëñ bi njaareem talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci tamxarit diggante ñett jàpp ñeenti waxtu. bu asamaan si dara kenn na muy talaata ndox nga xamee ne yegsi na njaaram itam ni ko mag nett leen dañuy wax ne ñu ngi fa yegsi ginnaaw tisbaar waaye boobu takkusaan jotagul. muy kër googu yi nekk ci wetu gànnaaru kër sëñ Tuubaa gi. foofii la wàcc dal ci biir kër ga nag ñi dégg ko fa di ñëw di ko siyaare ak di ñëw di ko nemmiku ku mel ne sëriñ Mat Lamin Jóob Dagana danañ ko ci tudd ne fekk na ko foofee ca kër ak sëriñ Maxtaar Silla danañ leen tudd ne fekk nañ ko foofee ca kër ga wax sëñ Mat Lamin xamal ko itam ne ko sëriñ bi fan yi kon dimaas ba léegi daal xamuñ ci moom dara sëñ Modou ni ko waaw baax na naka noonu itam sëñ Maxtaar Silla ñëw na fa moom itam xamal ko daal ni ko sëñ bi daal mat naa nemmiku laaj nañu sax ña nga xam ne ñoo féete foofu ca moom waaye dañ dañoo xam nañu wax barab sàngam na bu junoo dëgg waaye booba ba léegi xamuñ ci moom dara de booba ba léegi di moom yënguwul dañ ko ko waxee itam fekk foofee mu toog mbooloo bari na mu jàpp loola waaye teewul mu nekk fa di maslaa ak mbooloo mi di waxtaan ak ñoom di waxtaan di waxtaan ba yàlla dogal timis jot. di maslaa ak ñoom ba ca bañ jullee timis ba pare nag sëñ Modou woo sëñ Mad Lamine Diop Dagana woo sëñ Makhtar Silla léegi ni leen kon bisimilah. bi timis jotee ba ñu julli timis ba yeggal nag da daal di rocc ko ndànk. ci jataay boobee mu nekkoon ca kërëb goppam ga ànd ak uh, sëriñ Maxtaar Sille moom ma tuddoon léegi sëriñ Mat Lamin Jóob Dagana moomu ak sëriñ Ablaay Jóob Leewna ak sëriñ Cheikh Jóob sëriñ Cheikh Jóob Xari Jeng ñëw ci kër gu mag gi seet si sëriñ bi والإمام المالكي عليه الوان كريم المالكي jaareem diggante juróom-ñaar ba juróom-ñetti waxtu ci ngoon. lii sëñ Modou woo sëñ Mat Lamine Diop Dagana woo sëñ Maxtaar Silla léegi ni leen kon bisimilah jaare ci bunt bi ñuy wax buntub sëñ Masamba dugg si ca biir kër ga laajee itam fere yi yoroon caabi yi ñu xamal ko sëñ Cheikh Fatou Tàkko moo yoroon kees googu mu la woolu ko mu ñëw mu laaj sëñ Cheikh fa Tàkko fan la mujj a déggee sëñ bi mu yëngoo. mu dikkee ne fu ma mu ne fa bunt la mu sàkkat la ba mu duggee ànd ak sëñ ma ànd ak juróom ñooñ ñi mu séddee kilifteef capitaine daa mel ni ba mu njëkk a jot. ca bitti. bëgg ñii nag demal ko seetal ko. benn buntu desati bu ñëw. sëñ Mate Lamine Diop nag moo ko Maxtaar si la. ñu ngàmb fatafoor. Maxtaar a ngàmb fatafoor ba. bëgg fu ñu dem. wala ñu jéem si buntu nekk danañu nuyoo. bañ kenn fayatuñu soog a dem seet bunt ba. Ah. ne biñ jëkk a jot Moxtaar si la talal Fatal ba gis ko nga xam ne nii bi sës ci bunt bi nga xam ne dara li si ci ah. ñu fekk ko ca rumba. Moxtaar hmm. jox sëñ Mën Lamin Fatal ba. Moxtaar jox sëñ Mën Lamin Fatal ba. Ah. mu seet ko def ko daal di dellu fii sëñ Modou Diakane moom si xariñam ak Abdoulaye Diop la woon. waaw ndax seddee kilifa kilifa mm. kii teggeen. waaw ñu dikk wax ko ko bu teggeenu. waaw naan la ñoom ñaar man de maa ngi ca biti. waaw ndax booba nekkee ma ci dara lu may ñii li ñuy def kenn waru koo seet. kenn war du seet sëñ bi dem fu la woowu waaye booba maa ngi am ni caat ak ñett laa toll ñoom xay mag lañu li ñuy def ci seen wërti la di nga xam ne sëñ mu dem na seet ko bi nga xam ne yegg si nañ ba agsi ci bunt bi tam ni ñu ko xam xamee bu ñëwee wala moom mag ñëpp xam nañ ko mooy bu ñëwee itam xaddamiku yëglu na bu ñu nuyoo waaye mel na ni dégguñu kenn ku wax ak ñoom ñu wuy ba ci biir bi ñu wéyee itam ci fi ñu njëkk a jot rek bi ñu ubbee fa la ñu fekk bu baax ki mu tëdd ca melukaan woowee nga xam ne moom lañuy ñuy nettali jël ñu ciy xóot. sëñ Modou nuyoo kenn fayu ko mu teg loxoom ci jëmm ji bés nag waaye pour yu mu tudd yàlla julli ci yonante bi xam ni la suñ borom digge woon loola mooy liy agsi agsi tey an kaatiba sinunuufi laa yamuutu abadan wa anna almawta allasi kaana mutawajihan ilay fi qawli taala kullu nafsin saa'iqatul mawti kullu nafsin saa'iqatul mawti la itam la tax mag ñu xam ko mooy sëñ Ibnu Amar nga xam ne daf doon rooti ca teen ba bi mu rootee ba jàll ci kaw tànkam la tànkub sëñ bi jaar moo tax li ci rafet njort bu baax a baax ci ni sëñ bi donn gi mu donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp nañu yor yorub altine nag moom itam mu daal di xam ni léegi li ci des mooy yan bi nga xamante ne ni moom la jàmbar ji yan woon loolu agsi na tey ci kaw boppam lam ko batale woon muy naa dem Touba te bu xat damm loola daat nay agsi ci waxam ginnaaw ba mu ànd ñoom ba mu demee itam day fu xat a jafee waxtaane foo xam ne ba mu demee daal ànd na ak ñoom ba foofa bi ñu yegsee itam la nga xam ne moo ko war ci ak dëgër moo ko war ci ak muñ ak takku fas yéene taxaw itam loolee mu daal di fay taxaw foofee ginnaaw bi nga xamee ne xam na ne kat dogal bi ñëw na suñu borom subhanahu wa taala lii la namm ñi nga xam ne itam noonu la amee woon rek ca sàngam ba bi sallallahu alayhi wa sallam la yegsee te mu ni la ñàkk noonu rek lay deme mu taxaw na ci lu saytu ak jàppandal mbir mi noonee nee ñu li nga xam ne loolu am na ci la daal di loolu Cheikh Fatak Diop nettali na ko wax na ci la daal di woo sëñ Cheikh Xari Jang Diop wax ko ne demal wool ma Basiiru nee na da koo sàllal noonu la ko waxe di woolu sëñ Basiiru nee bi mu demee moom sëñ Cheikh Xari sëñ Cheikh Jang daa fekk foofee sëñ Basiiru naaru gànnaar boobu nga xam ne moom la ñuy wax Mouhamad Mahmoud al Tandari Mahmoud nga xam ne kenn la woon ci nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ak sëriñ bi. taxawoon ak sëñ Basiiru lool bi mu moom la fekk ca moom waaye nee mu fexe ba wax ak sëñ Basiiru ba woo ko daal di ko fay bàyyi bi sëñ Basiiru yegsee itam ci Cheikh Mamadou Moustapha mooy itam nee na ba jot xibaar beeg la ci aju lépp sëñ Basiiru ci boppam moo ko yabalaat ne ko demal wool ma Mahmoudam mu dem woo Mahmoud moom di naaru gànnaar bu ñu waxoon léegi mu ñëw kon loolu itam bi ñuy tekki rek mooy moom itam fekk na ko ñëw na bi mu ñëw itam nee na ñoom ñu waxtaan. ci lañu war a waxtaan yàlla dogal ndax boobu ñoom ñoo fi ñoo nekkoon foofu jege fa ba ñu waxtaanee itam ba tënk lañuy tënk nee na yónni na sëriñ Maxtar la ci sëriñ Balla Coro ngir mu xamal ko xam naa li xew ba loolu amee itam sëñ Balla Coro bi nga xamee ne yéeg na ko moom ci boppam. wax nañ ne bi ñuy dem sëñ Modou Moussa ak sëñ Balla Coro ñoo ànd. dem ci commanda bi. ci biir euh, euh, euh, rapport boobu mu def ci la 29 juillet aussi ci la xamle ni xew-xew bi ba muy xew kenn fekkiwu ko Cheikh Moustapha moo ñëw fekk suñu borom jëfandikoo la ko soob ànd na ak sëñ Balla Coro ñëw yëgal ko commandant wala la administrateur de Diourbel ba ñu ñëw ba fekk sëriñ bi fu mu nekk ba xam ni xew-xew bi am na. may ma Maxtaar Sylla ci sëñ Balla Coro. waaw moom la muy wax moom suñ balla dem ànd ak maanaam ñëw ñoom ñaar rek ci oto maanaam baraad moo doon dawalal boppam lañu ñëwee ñu ubbi leen ñu dugg ca biir ak maanaam gis ko ba xam lii moom la ñu doon jéem te mënuñ sa dara. muy tubaab bu ñu wax paal euh, yàggu fa waaye gis na ko teg na ca bëtam gannaaw teg na ca bëtam ji du mën a wax maanaam dara du mën wax na dara. nañu itam àndale nag benn médecin nit ku ñuul yoo xam ne moom lañu indaale ñëwee moo ko seet ba constaté ba wéyal ni kii génn àdduna ndax sëñ bi ni mu daan dunde ak li ko daan dikkal ak génn àddunaam nga koy confirmer tubaab yi duñ ko mën a gëm rek ci wax nii rek ni kii génn àdduna sëñ du wax commandant bi nag ni ko dama ko yóbbu ci këram ji ci Touba commandant bi ni ko loolu mën naa ne ndax boobu buur yu amut benn xew-xew yënguwut dara amut waaye itam nag mu xamal ko ni ko léegi faw sama kilifa dana ko yëg muy gouverneur général sëñ Modou ni ko waaw loolu mënees nag ko yëgal. su ñu demee ci archive nationale télégramme numéro 1390 euh, ci la euh, Paal mi doonoon l' administrateur euh, de Diourbel doon rendre compte ki nga xamante ni bii moo doon le gouverneur bi nekkoon au Sénégal. bi nga xamee ne ñi ngi delluwaat itam nee nañ foofee la ko Cheikh Moussa waxee ne ko moom ka da koo bëggoon a yóbbu ci dëkkam bi ñuy wax Touba fekk na boobu itam nee na bu ko ko waxee mu ne ko loolu de manu na loolu la ko naa bi wax ci saa si ne ko loolu de dinaa ko yëgal sax samay kilifa waaye war naa mën a nekk yàlla dogal bi nga xamee ne loolu am na mu yëgal ko loolu moom itam mu nangu ko ca saasa xamal ko sax ne nag moom kilifa yi danañ ko yëg ndax nangam waaye nag li tax mu li tax maye ko itam nee na mooy xëy na foofu bariwul jallaw jallaw yëngu bariwul boobu itam gisu fa lenn daal luy tegtale ne daal lu ci mën a indi jafe-jafe ci biir mbooloo ma am na ca loolu itam la Cheikh Mamadou Moustapha daal tàmbali nag di ci aju jaareem diggante fukki waxtu jàpp fukki waxtu ak benn ci guddi wal amaat baqaa waasi min asamaat dogal ba agsi na xibaar ba rot na sëriñ tuubaa ñibbi na njàqare tàbbi na dënn ya rëcc ñépp rët lu kenn mësul xaar lu kenn mësul yaakaar lu kenn mësul xalaat sëriñ tuubaa dem na aljana seex mustapha des fi dékku àdduna wa saydallaahu tabaaraka wa taala أن الكاتب عاشم في لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه sëñ Basiir wax ko ne ko Mouhamadan Tandaxi ma nga fa naaru gànnaar la di boromub cër boo xamante ne wax na ni sëriñ bi dénkaane woon na ne bokk ci ñi ko mujj ci moom ñi koy taxaw Mouhamadan Tandaxi ba mu ñëwee ak sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ñoom la sëñ Moodu wax ñu waajal ko wàccaay bi muy demee Touba moo defee ñu daal di indi oto bi muy safoor ba tudd Doudou Cissé ñu ni marque Delaay la daa Moustapha daa Bassirou daa Mouhamed Lamine Diop Dagana Mouhamed Tandakhir Sahin Mbacké Yakhari man ba nga xam ne looloo dem nañ ba moom tege fenn ba wóor sëriñ bi itam daal di santaan nañu yóbbu ko Cheikh Mamadou Moustapha sant rakkam Cheikh Mamadou Bachir mu jiite yoon wa Cheikh Mamadou Bachir ànd ak ñaar ñooñu nga xam ne ñoom laa waxoon léegi ci ginnaaw muy sëñ Mahmoud ak tandax yi sëñ ak sëñ Mat Lamine Diop Dagana ak sëñ Maxtaar Silla ak sëñ Cheikh Xari ak Mouhamadan Tandakhi juróom ñi la ko sëñ Moussa booleel ak Dut Cissé mi nga xamante ni moo doon dawal oto bi ñoom ñoo ko indi Touba. moo moomoon oto ba ñenn ñu wax ni beneen naar bu nekkoon foofu moo moom oto ba waaye li gën a wér daal mooy oto bi oto bi sëñ woon ab marque la ci lañ dugal sëriñ bi yóbbu hmm, fekk na borom oto a xamee dara. ñu yëkkati ñoom ñu ci oto bi juróom ñett ñoom ñu nag suñ bàll coro ci dolli ko di fukk képp Abdoulaye Diop la woon na sëñ sëñ Modou Cheikh Moustapha yónni na ko Daaru Muti ne ko ba ak si Touba yónnee nañ ci sëñ Mbacke Bousso yónnee na ci Cheikh Mahamadou Fadil yónnee itam ci mag ñi nga xam ñoo fi nekkoon lu mel ne que fekk na booba Cheikh moom du Lamine Gueye yónnee nañ ci moom sëñ Baara Gueye yónnee nañ ci moom sëñ Manoumbe yónnee nañ ci moom ak ñu mel ñoo ñu ma wax daal ba lu war a mat ñaar fukk ak juróom-ñett nee ñu mooy ñi nga xam ne ñoo te xew-xew boobu. علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وطيب لم يرق زاد جادني راني أو جانب الهالين والخسران لم يمني دور الله الدنيا وقصد الباقي بخير سنيا ملكني soo demee ci biir rapport bi euh, euh, bi xew-xew bi amee le 23 moom l'administrateur de de Diourbel ñëw na Touba doon xool ndax ñoom ñi ngi doon tiit ay émeute am murid yi gisatuñu sëñ bi yëngu-yëngu yeeg yooyu lañ doon tiit mais nee na ba mu ñëwee ak dal la fa fekk dañoo daal di jëloon benn dogal bopp dañu woon murid yi ñëw di ziyaare si barabu sëriñ bi. vingt 24 heures lañ leen may ñu def ko euh, Touba kon ci le 23 juillet ci la ñëw xool ba xam ndax loolu ñu waxoon mi ngi nekk euh, mu gis ni amul benn yëngu-yëngu murid yi ñi nga ànd ak daal ñëw di ziare ci barabu sëriñ bi bañ ca tegee ñaari fan la ñu wax ni conseil famille bi ci la ñu daje kon Cheikh Moustapha li ñuy wax officiellement ci le 25 juillet 1927 euh, ci la doon xalif général des mourides wuutu ko tedd ci xaadimu rasul ci Ahmadou Bamba ba mu sëriñ bi jógee la toog waaye euh, ni ñu ko officialisé booba tubaab yi ñoonu yilif ci le 25 juillet 1927 ci la ñu ngir borom daaru Mouteeg ak ñoom ñëpp ñu daje ñu décidé ni Cheikh Moustapha mooy wuutu euh, ku tedd ci xaadimu rasul euh, Cheikh Ahmadou Bamba foofu aussi li tubaab yi tiitoon ndax tubaab yi ci seen rapport waxoon nañ ni sëriñ bi bu fi jógee kenn mënu koo wuutu mu mel nii boo déggee Serigne Moussa Ka ci mars yëpp ku tedd ki xadimu rasul ci Ahmadou Bamba ni mu waxee eh, doon na jafe lool yoonu murit continuer ginnaaw sëriñ bi ndax bi muy martial sëriñ bi moom sëñ Moussa Ka dafa jël jëmmam def ko mu yoonu murit ma ñëw fi jooy jooy wolof mbër ma defar réewi wolof baloo fa seeru am yëf te wootewul fetali sox moo naka mbir yéen ñi di mbër ku mel ni man moo lu ca war gumba gu ndaw lu mot la fer ndey jëne mes lu ngeen ca xam te amagul ku ko womat te xamagul yoon wu jubit ku mënta daw baraw lorit te xel ma dof nopp ya tëx xel may gëlëm di fërfëri rongoñ ya yuur di cër cër yi cër ya ca des di bërbëri di jéem a jëf te ruug a laax saa boo xëyee dëkk mu di jooy mbaa mu yërëm tëlu ba yooy soo ko gisee gët yi xuuy mbaa muy palamtiku lu mu seex kon li bi doon xalaat am nañu demoon bay dute waaye liir boobee indaale woon laago yooyu yépp Cheikh Moustapha al Karim moo dindi ngumba ga ba muy gis dindi luuga ba muy wax dindi Euh, euh, euh, woppi xel ja ba mu doon nit jar ba ba mu fiy jógee en liir boobee doon mbër moo xamante ni lamb ju mu dugg upp làmb ja te mooy yoonu murit keroog la ko daam fal xut bu muy xalifaam jiital ko ci baatin mu donnu lislaam